want. Yéen a ngi teewlu seen 24 TV. jëfal nañu leen bu baax ci ànd bi ak ak topp bi nga xamante ne rek nañu koy topp ci site internet bi di réew mi 24 TV bu ñu sukkandikoo nag ci ab communiqué boo xamante ne rek moom mooy jugee ko ci direction générale des élections nag ne nañ liste candidat yi nga xamante ne rek retenir nañ leen nag dinañ leen publier ni ki 7 octobre ndax nag lii di campagne électorale bi rek daañu ko amal ni ki ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru octobre daal di koy jeexal nag ci fukki fan ak juróom ci weeru novembre résultat élection législative yi nag dinañu ko xam ni ki ñaar fukki fan ak ñaar weeru novembre gën caa yéex tey ci wàllum xibaar nag euh, procureur de la république moom si jëmee boppam rek ba ngay sàkku nag ñu daal di ubbi rek ab information judiciaire euh, ci mbirum luubal gi nga xamante ne daal nañu koy luubalu toll ci cinquante deux mille tonnes ceeb yoo xamante ne rek euh, ña ngi cey tudd nag directeur ñu ngi cey tudd nag directeur ak sénégalais trading compagnie STC STC ak kii di Ali Zeydan ak ñamu àndal nag moom jiital parquet bi ma ngay sàkku rek ci ab mandat de contre ñi nga xamante ne rek dañoo njort ne dañoo daal di laale nag ci boobule dossier foofa ca juge foofa ca juge bu sixième euh, cabinet ne nañ nag ñii di bande bi nga xamante ni rek dañoo daal di wax na rek ñoom ñooñu ñoo ci laale dinañ leen teg loxo ba tey nag ci wàllum xibaar bu ñu jógee ko foofu dañuy àddu rek wax ci kàddu yi nga xamante ne kii di Cheikh Omar Anne daal dina koy yëkkati nag nee na kenn mënu ko tere rek mu génn réew mi bu bëggee génn nag dina génn par la force doole mbaam di kàddu kii di Cheikh Omar Anne moom nag la mu daal di xam ne amul mbindeef boo xamante ne tey ji rek mën na koo tere nag mu génn bitti réew mi jamono ji ñuy wax nag ñu bëri ñoo xamante ne rek bokkoon nañ ci nguuruk Macky Sall nag dañ leen tere rek

yi nga xamante ne moom la ñu génn nekk ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru mars ci atum 2024 daal dinay bind rek journaliste bi di Madiambal Diagne ci yooyu les liste même bu fekkee na sax journaliste bi ci jëmee boppam rek moom ma ngay def métier bu nekk rek waaye nag xel nangul benn yoon ab journaliste nag ñu war koo tànn rek muy daal di dem ci langum politique ndax nag lii di métier sax mayul ko ko mu nekk nag kaddu yoo xamante ne rek ñu ci bëri daal dinañu koy eh, xamle ba tey nag ci wàllum xibaar bu ñu jógee foofu dañ koy daal di jeexalee ak agression bi nga xamante ne rek nemmeekoon nañ ko eh, foofa ca diwaan bu HLM nag boobule agression nga xamante ne rek dégg bëccëgu ndar kàmb la ñu ko dal di woon amal nag jamono ji euh, police daal dinay teg loxo gang yi nga xamante ne rek ñoom ñoo doon def yooyu lay ñaawteef ginnaaw nag première arrestation yi njëkk yi nga xamante ne def nañ ko kii di Mamadou Diop ñu gën koo xam ci turu alias euh, Pape bu ndaw ak Seydina Mouhamed Gueye ñu gën koo xam ci Petit Mouha jot nañoo jàpp nak keneen koo xamante ne ma ngay woo ci turu Pape Gorgui Faye moom nag dafa làqatu ju woon foofa ca diwaan bu Sédhiou attaque bu nu mel nag ñu ngi ko planifié woon foofu ca diwaan bu Grand Yoff nga xamante rek kenn ku ci nekk ci ñoom nag dafa daal di am rôle bu am solo boo xamante ne rek jot nga ko nekk membre boo xamante ne rek bañ ca noppee kenn ku ci nekk am na lu toll ci cent mille de francs CFA ñoom ñi nga xamante ne rek ñoom ñoo nekkoon cerveau boobu les gang nag daal dinañ leen teg loxo ginnaaw bu ñu leen xàmmee ba noppi nag daal dinañuy joxe ñoom ñooñu nag signal ci képp koo xamante ne rek bokkoon nga ci groupe gi mbir mu nu mel nag jamono ji nag boobu les groupe jamono ji ñuy wax nag bu sukk sukkandikoo ci libération daal dinañ leen teg loxo jërë ngeen jëf ci ànd bi bu leen fàttee abonné bés cloche de notification yi ngir mën a am yeneen xibaar